à vous J'espère que les cool et que tout le monde se porte hyper bien. Donc, euh, merci et bienvenue sur notre chaîne YouTube Kenza 221. Bien sûr, la chaîne des news, des plus belles chroniques, mais aussi la chaîne qui vous fait vivre les meilleurs moments du game. Donc, jusqu'à présent, vous vous êtes pas encore abonné. Mais des fois, je me pose la question, mais là, nous pour abonner. Guys, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification dina permettre buñ les vidéo automatiquement signal sans pour autant gagner di di recherche de gauche à droite ou quoi que ce soit donc euh, comme d'habitude Daniel wax ci d'un jeune artiste rappeur très talentueux qui se nomme tout simplement Bour Mike Bour Mike récemment a un projet qui s'appelle Mixtable au nom de Arc-en-Ciel et qui comporte ce titres ne la pas, bien sûr mais mi ngi job di génne ay sound dem ba projet donc c'est à encourager et à féliciter pour plus de force. alors euh, nous allons parler sur son sound intitulé yengal qui ci mixé ba mbi di arc-en-ciel nous allons en parler expliquer détailler après nous tamit faire leen ngeen joxe sen ci commentaire donc let's go ñu xoole ji euh, sound bi joxe ci suñu réaction ñëwaat léegi léegi le sound A pour titre triangle mais avant tout bo len xolé titre mixé bi arc-en-ciel la et arc-en-ciel beaucoup de rek automatiquement war nga mën xamni xam mixé bi lu bari couleur la parce que nous ñun ñëpp xam nañu arc-en-ciel des couleurs couleurs au fait genre mixé bi lepp lo xalaat rek mo ngi ci amna bien sûr am way amna classique drill lepp ya tout dedans donc juste pour montrer qu'il est polyvalent motax mu tuddé mixé bi arc-en-ciel léegi nag ñu ñëw nag ci sound bi yëngal bon yëngal moom boo ko déggee tamit automatiquement di nga xam ne ego trip la mais ego trip foo ko dégg tamit mën na am pic bien sûr en même temps mën na am tamit clash. yëngal yëngal ndey gam bii laay yëngal meen yëngal yëngal ah ndey gam bii laay yëngal meen ah, yëngal yëngal ah. ndey gam bii like younger man, younger school, younger um, they can be like younger. Am I day? Am I day? Am I day? Am I day? Am I day? Am Damn. gaay boo leen xoolee sound bi buuru Mike refrain la ko ubbee et ngi naan yëngal yëngal ndayu gemb laa yëngal bon boo déggee nday bi mu wax rek dinga xam ne kii ñëwul yëngal pour fecciloo kenn non ñëwul yëngal pour fecciloo kenn ci game bi mais dafa ñëw pour régler quelques problèmes ci biir game bi bon su ma nee ci biir game bi nag rappeur beeg <laughs> animateur beeg DJ yeeg breakman yeeg ñépp a ngi ci biir ñépp ci lañ bokk di jégalu bu baax nag ci euh, saaga bi mais côté boobu je me dis que ni moom personnellement buuru Mike waroon na ko mën a codé man j'essaie juste d'expliquer moo tax ma ne ngi jégalu bu baax a baax. kalu duma wonn baat c'est de lumière ñu ngi fay di tàkk sànni len ma xeer carrière bi màgg bi tey di sap ñuy di ma tàgg rof bi des romba leen bu yag duma arrière barrière bi dàkk indi dañ sa fër rus bi tàkk dama ñeme xal ni nga maa ngi làkkee suur naa këlu duma wann baat je de lumière ñu ngi fay di tàkk genre métaphore la et lu mu bëgg wax moy rappeurs yi dañuy fay di tàkk di yegg di wacc comme dollar xam ngeen dollar de yéeg di wàcc donc mën naa ni foofu lay waxee am nañ tamit technique d'écriture next level genre am na moo yoo ñoo bokk même prononciation à la fin mais pas la même façon de les écrire comme tak »,« mag »,« tak »,« yag »,« dag » ak tak ». en même temps am nañ altération en t parce que mooy yi nga xamante ni am bari na trop et li rek taaru la te tamit lii vraiment day jox sound bi jëmm ans dama dis weer xëj ma sa biir dooma dix weer sama def différence ci fee di weer xajuma sa bopp sa biir dooma dix sama benn baat men seen dix weer technique d'écriture next level ak vers vraiment vraiment extraordinaire sor ma sor ñoom ñëpp laay coob na ma sor ñoom ñëpp laay coob am nañ punchline ci la moo soor sóor comme sóor ceeb mais sóor comme kuy tëkku nit par contre nag mën nga ko comprendre si yow nga basé wu ci la moo coob parce que nag soo xeex ak nit xam nga mën nga ko ni suma la jàppee naa la coob et ceeb bu ñuy coob tamit dañ koy sóor. dégg leen ay drone si bopp rëkk seen digg booy rabi ma ma ñor ñi fi dàq bisaab laay daxaar jarul di laaj man maay sabal. putain jarul di laaj man may safal beneen punchline ci la moo laaj laaj comme ngay laaj nit dara poser une question mais laaj comme laaj bu ñuy dëbb. di jarul di tàngal man maay boyal. jarul di tàngal man maay boyal tàngal tamit dafa ñuy jox un double entendement tàngal comme ngay tàngal dara pour mu tàng mais tàngal comme tàngal bu ñuy màcc. tàkk may jam ni du dijee taal mooy tax ma man la ni nga may papa putain du dib du ngaaka may jam ni paaka du ma la aru jox len ma ni may sen papa bon mën nañ jëlee nem dropping ci ñaari animateur yi dijee taal ak pap di fal mais mën nañ ni sànd na pik dib dundu gis ak lim ci bëgg wax kenn ci pour siiw यंगल नई गेम भी लाई यंगल मैन यंगल स्को यंगल नई गेम भी लाई यंगल मैन यंगल यंगल नई गेम भी यंगल मैन non mais buur buur buuru maag yaa quoi au fait BM jëy wala day sama big baa ngi naaj seen big baa ngi day from jeeg toj naa taatu jeeg buur teew na tey na ngeen toogaat ci kuul <laughs> Mr Cash ak Akatsuki ñoom ñëpp lay saaf def leen ci kaas damay naan sama kaasu kafe lu mu tàng tàng duma naan dute waa mais buuru maay yaa quoi tamit lu xew fii wax na fi BMJ ne bégu BMJ ay day lay bind mais moom bigam luy ci lay bind nàcc boo ko déggee mooy lu agressif mu pare teg ci Samba Peuzzi parce que Samba Peuzzi mooy from jeeg mu ne toj naa taatu jeeg yamu ci mu teg ci Mr Cash ak Akatsuki te ñoom ñépp la dafa saltel seen turi te teg ci nee na ñoom ñépp lay def ci kaas boo leen xoolee comme ni ma leen ko waxee dafa saltel turu Mr Cash au lieu mu ne mista Cash mu ne Mr Cash Akatsuki mu ne Akatsuku mu ne damay naan sama kaasu kafe lu mu tàng-tàng duma ko dutee am nañ punchline ci la moo dutee dute comme ngay dute ci nit am xel ñaar mais dute comme dute bu ñuy naan tamit nañu sama kaas duma kenn aaluma brique dëkk dox si xal man faalew ma bie ñu fi gën aayi man maa leen di kiil lu liir mi di bind man maa ko ko lu liir bi di bind man maa ko ko wan double entendement ci la moo liir liir comme lecture mais liir comme bébé buy soog a juddu. putain ku topp ngaa ko gën a matadi clash la envers ngaa ko blende et matadi mat waa mais buuru maa yeeg buuru maa yeeg yow doo wax lu xew yow tamit nag ñu mën a comprendre. musique daa indi lu bees authentique ak bees ak kañ may jëngal kenn bi lii jaamu dong la yaa ma jaay sa taat may def musique daal di indi lu bees authentique ak bees ak kaca des may yëngal game bi li jàmm dong la. mën a doon buur lay doon xala naa sama yoon marqué ruus sama zone yaa ko tey boor buur lay doon. donc mu nee na waat marqué naa sama zone maay ruus sama zone def na name dropping ci euh, euh, def music labelu ñoom authentique en même temps mu defaale name dropping ci Authentic Zeus ak ki nga xam ne moo di ak bes ak Elzo Jam dong tamit am nañ tamit punchline ci le mot jaune jaune comme couleur mais jaune comme ku dugg ci ay 18 jàmbur. yëngal yëngal ndey game bii yëngal meel yëngal yëngal ah, yëngal yëngal yëngal yëngal ndey yëngal meel yëngal sko d'accord gars yi gis ngeen euh, lii lañ leen indiloon tay ñu doon wax ci ki nga xamante ne ni moo euh, Bour Mike sur son sound intitulé yëngal bokku ci projet mixé ba mi nga xamante ni c'est intitulé arc-en-ciel donc euh, joxe leen ci sen xalaat man j'ai déjà fait la réaction wax sama xalaat wax leen ci sen xalaat ak tamit no leen gisee Bour Mike no leen gisee son son sound intitulé yëngal à clavier, claviers Bainam Donc n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de partager, mais aussi de liker Oups sa bouche.